secteuru gerte si Touba mën nañu jàpp ni bokk na si li ëpp li indi koom li jox xëy ndaw yi waaye tamit jigéen ñi du ñàkk nag mu am ay gàllankoor si bu campagne bi ubbee loolee nag dina dal si kaw ñii di opérateur yi ndaxte lenn seen ay camion dinañ koy faral di téye te nag dina yéexal liggéey bi bi mu amee nag ren jii si biir soogay tàmbali campagne bi ñoom kuréel gi ëmb mboolem opérateur yi yëngu si wàllu gerte gi demoon nanu seeti kilifa diine yi ñu si mel ni porte parole du xalif général des mourides Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadr mu am si taxawaay bu am solo saisir ministre bi wax ak moom si wàllu wunu mel ngir nag liggéey bi mën a tàmbali si anam yu baax naka noonee ministre bi moom it compréhensive loolu am Aminata Assome Diatta joxe ay ndigal si mboolem service am yi ngir ñu mën a bàyyi xel lu nu mel loolee nag tax na ñii nag di opérateurs yi di sant ak rafet rafetlu diligence bi am si ñaari kilifa yu mag yooyu. li toxoon ñu woote mooy juste dañu dugg ci campagne d'arachide bi deux 2021 2022 bi ñu commencé campagne bi ñu téewoon suñu benn autocollant fii ci Gossas yóbbu ko gendarmerie ñoo ko téye yóbbu woon ko ci service des commerces bu Fatick bi mu loolu amee nag. ñu dem seeti kilifa gu mag di Serigne Dan moom Serigne Abdou Lahad Mbacké waxtaan ca ak moom bi ñu demee sëñ Dan xamal la ñu ne kam ko loolukat ci biir njaboot gi la ndogal li daal ci seen kaw dañuy dem ci ki nga xamante ni si ne moo yor kàddu sëñ bi di Serigne Bass Mbacké Abdou Khadr moom ñu di ko sant di ko ñaanal bu baax ci taxawaay bi mu woo ministre bi bi mu ko woowee ministre bi moom it ci disponibilité am wax dëgg yàlla ak ci yitteem ak respect bu mu jox sëñ bi mu recevoir ñu ñu dem toog waxtaan ak moom expliqué ko bi ñu demee nag moom it euh, wax dëgg mu woote fa ñu bàyyi oto bi waaye yamu ca def ne nañu tenir benn réunion ak service de commerces yi nekk ci régions yi ci senegal yëpp ñu waxtaan kam que doomi département de Mbacké doomi tu bàyyi fu nekk la ñuy dem ci territoire Sénégal di jënd gerte te bu ñu sañoon du ñu am benn gàllankoor ci yoon yi rawatina muy jógee ci ñun ñi juste rek tey ñu ñëwoon pour euh, remercier euh, Serigne Dan moom Serigne Abdou Lahad Mbacké ci euh, yitte jëmuñu jox ak ci taxawaay bi ba yóbbuñu ci suñu sëriñ suñu kilifa suñu lépp di Cheikh Bachir Mbacke Abdou Khader di porte parole yoonu Mouride loolu di rëy la waajuram ba Cheikh Abdou Lahad Mbacke doon wax képp ku ma defal lu ñëpp gis danaa la sant bañ la dégg. te Cheikh Bassirou Mbacke Abdou Khadr taxawaay bi nga xamante ne si ni am na ko def ko defaluñu ko ñun ñi rek def ko defal doomi département bi ñëpp defal ko doomi Sénégal. opérateur économique yi nekkat comme seen traite ubbi na nii kilifa yi def ba indi leen solution si seen jafe-jafe bi gënoon mag doon dem beeg dikk bi ñoom it nañuy jaaxale yoon si seen biir ngir nag yombal liggéey bi ba nga xamante ni ñëpp dinañ si mën a gis seen bopp te du am benn gàllankoor ngir servir seeni réew.